waxtaan sax jaaral si yéen suñu nuyoo ci ki nga xam ne mooy kilifa dëkk bi ci kilifa yoon gi euh, di euh, sëñ Mountakha Mbacké yàlla ko yàlla may wér bay ko suñu kanam di yàgg-yàgg donte gisee nañu moom tey dalal tey euh, yéen la def yéen nañu jaarale si yéen loo xam ne dafa war a mën a yegg ci ñëpp di am mbégte teewati fi ren ji ñaan yàlla may ñuy teew ko at yu bëree bëri ñu ñëpp ñu ko teew ñu ko teewewu ñu koy seetaan euh, ci lu mag lii ñuy dëgmal muy màggalu jàmbaaru islaam cheikhul islaam wala euh, cheikhul xadim nga xam ni li mu def ci yoon bi mhm. def ko ci su ma nee yoon bi nag mooy diiney islaam euh, ma ne kenn defu ko ci de waaye gëw ma ni euh, ñi ko ci ëppale mën nañ leen lim def ko nag ci teg tànkam ci euh, jël léppam jébbal ko ki nga xam ne mu la yàlla yónnoon si ñun mu yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam daal ci jëf dundam yëpp daal ci consentir ay sacrifice yoo xam ne fuñ ko tegoon ci ñun mm. defe naa tey say sët euh, duñ leen euh, duñ duñu fekke ba tey ñu egg fii ñu egg mm-hmm. ndax natt bu ne dund na ko ci génne nañ ko réewam mm-hmm. euh, tëj nañ ko bunduxatal nañ ko mm-hmm. waaye lépp mu des ak ngorom des ak diineem xam lan mooy mission ba tey looloo ko may lii wax naa sànq dëkk bi ñu toog tey toog ci salle bu neex bi mu climatisé defe naa cent ci gannaaw ay bukki fi ne woon ak ay bolo waaye amul woon bi tey mu nekk la deuxième euh, ville du Sénégal kon loolu dëggu ak liggéey ngir yàlla kese moo ko fay mu war doon nag misaal pour ñun ñëpp ba tax suñu ñëwaatee teew ci lu mel nii dañuy am mbégte bu rëy rëy rëy xam li ñuy màggal lu doon waaye surtout bañ fàtte enseignement yi ci war a jël surtout nag ñi di yëngatu di woote ni dañoo bëgg luy defar eh, ñuy jaareel nag ci yéen suñu cofeel ci dëkk bi di ko jaarale di jaarale ci yéen suñu cofeel ci yoon bi yëpp naam ci parti politique la yëngatu parti politique bi nag ñëpp a ngi ci diine yëpp a ngi ci tarixa yëpp a ngi ci xeet yëpp a ngi ci waaye tey boo ci doon seppi ñi nga xam ne dañoo bokk ci yoonu murit defe naa parti bi da cee def lu bëri ñu ngi sant yàlla bu baax defe naa kenn ëppale ci te li tax ñu ànd ak ñun nag caaxaan taxul alal bu ñuy seenu amul taxul waaye dëgg ak njub bu ñu yaakaar ak message bi nga xam ne walla vision bi nga xam ne am nañu ko yàq. yaakaar ni ñun ñoo war a góorgóorlu defar dëkk moo tax ñoom sëñ Cheikh Thioro ñii nga xam ne si njaboot gi la ñoom Matar seen ñii nga xam ne ñoom si seen bopp ñoo taxoon mbir mi ñoom Cheikh Aliou Bey ñoo ñëpp ñoom may mun a jël ñëpp Moustapha Sall nekk ci bureau politique bu parti bi euh, euh, te di ci def liggéey bu ñëpp gis ak ñi nga xam dañoo ànd ak ñoom ñëpp ñooy sëñ Moustapha ak waa Touba yëpp ñu àndal ci Pastef Touba Euh, dañuy jaarale foofu wax ni euh, dañ ñoo woon cofeel goo xam ne yoon bi de manière générale waaye dëkk bi ndax sànq rek wax naa ko bu ñu duggee ci dëkk bi surtout xew yu mel nii dañuy làqatu ndax li ñuy bañ mooy nit ñi def ko mbirum politique xale yi commencé woon nañ daw si ñëpp di rassemblé bu Sonko Sonko te loolu lañ ci doon bañ mm-hmm. cofeel googu nag dañu bëgg jaarale ci yéen Euh, wax ni cofeel gu ñu toll wala gu ko ëpp foofu lañu am ci yoon bi am ko ci waa dëkk bi am ko ci kilifa dëkk bi te ñoom it ñu woon ñu ko bu baax a baax ndax biñ jógee fi ba léegi ay kilifa la ñu seeti ñu jël ñu def ñu doom mm-hmm. di ñu ko won nag ci wax dëgg yàlla loo xam ne dañ ciy am sax kersa moom mm-hmm. kon loolu lañu bëggoon jàllale ci kàddu gàtt di wax ni ñu ngi leen di gërëm yi ci seen disponibilité mm-hmm. ndax xaw nañoo guddee Euh, bi ñuy ñëw fii euh, dafa am lu bëri bëri bëri bëri loo xam ne dama naan sa at wu ne saa suñu ñëwee ci màggal dañuy gën a bëgg waaye saa suñu ñëwee ci même su jamono màggal dañuy gën a bëgg dëkk bi mm-hmm. parce que dañ ñu ko dañ ñoo dañ ñoo yaatal ba ñu xam ne ñu ngi suñu kër mm-hmm. wax moo suñu dëkk waaye suñu biir kër la ñu mm-hmm. kon loolu amul lu ko mën a fay te bu amee dafa fekk yéen ñi di kilifa dëkk bi ngeen ànd ci ndax xam nañu fii nu muy doxe bu ñu benn kàddu rekk bu jiboon defe naa kenn dootu fa tudd Ousmane Sonko mhm. kon euh, ñu ngi leen di gërëm leen sant ci damay faral di wax nag ci daaneel mooy euh, du péete la ñuy si suñuy ñëw suñu péete ndax naam sax euh, kilifa diine dafa am cër ci réew mi am sañ-sañu nag ni nii laa gisee bu ko neexee mu ne ànd naa ak diw waaye ñaari li ci bëri njabootam lépp da ciy nekk tey jii lépp ànd ak man te bokk fii peut-être beneen leader politique bu fi ñëwoon lu ne toll dina fi ñëw te bokk fi <laughs> moo tax euh, ñun bokk ñu ci ñi nga xam ne dañuy essayer pour féete ci kilifa diine yi waaye am nañu sañ-sañ nag moom kenn mënuñu koo bañal suñu ñëwee gannaaw bu ñu waxee suñu bopp ba pare dénkaane suñu bopp sàkku loolu am nañ sañ-sañ bi di leen dellu dënk suñu bopp bu baax a baax di sàkku ñaan saa su ne di wax ni nag ñun nii rek amul lu ñuy nëbb amul lu ñu làq du ñu ñu du ñu essayer def li tubaab di manipulation wala yu mel noonu mhm. dañuy essayer nekk nitu neen nekk ay jullit di wax loo xam ne moo nekk ci ñun lépp duñu xalaat ni lii mooy dëgg ñu teg foofu suñu tànk mm. def ko nag ànd ak tey ak dal ak yar noonu rek la doxee mm. te jàpp naa ni euh, loolu rek mooy diine mm. ndax yeneen ci ëpp xam-xam fuuf euh, am na loo xam ne yeneen ñu ko jàngal ci diine mooy teg sa tànk ci dëgg di dox ci loo xam ne day defar xadis bi dafa ne man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisaanihi fu mu jeexee kon ñun ci loolu rek la ñuy essayé góorgóorlu amul leneen loo xam ne yitte la si ñun amul leneen loo xam ne làmboo na wala làqu na ci li nga xam ne ñu ngi ko yëngu amul bis bu ne ñu ñaan yàlla nag ñi bu dee am na lenn lu sell di ci suñu yéene ci réew mi yàlla ñu yàlla soril ci mbir mi wala bu mu mës sotti wala bu mu mës a tegu suñu loxo mhm. yéene bu rafet rek mën nañu juum nag en tant que nit ndax nit matul waaye juum ci bonne foi du juum boo xam ne ay calcul wala ay yu ñuy teg mu ko mu ko jur kon ñu ngi leen di gërëm bu baax sëñ bi di leen euh, masawu coono ci fan yi mm-hmm. naa ni sollicitation yi bëri na waaye jar na ko ñu ñaan yàlla lépp luñ fi def yàlla nangu ko mm-hmm. yàlla may ñu dugg ci ci jàmm génn ci ci mm-hmm. euh, euh, ñu accident yeeg yu mel noonu feebar yi nga xam ne moom la ñëpp ragal yàlla na yàlla def ci génn ñu ne affaire yokk na wala sax lu gën yàlla nañ ci génn mbir mi jaare noonu jeex tàkk mm-hmm. waxuma la Sénégal rek waaye adduna bi yëpp mm-hmm. ñu mën a dellu seen liggéey loolu daal lañu bëggoon ci lu gàtt ñu ngi leen gërëm leen sant allahu min kulli karimin akram